الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل صوم رمضان على الظاهر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki julit yi mbokki auditeurs yi rajo dunya ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu àq ci weer wu màgg mii muy shahru ramadan al mubarak di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na nu yàlla nangul di nuyu borom daara ji di nuyu almudir di nuyu sunu technicien bu baax bi ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala yàlla dafa leen tawfiq muy al imam Baye su ko defee mbokk jullit yi ñu ngi ñëw di fàttalante ak yéen ci benn tomb ci weer wi tomb boo xam ne jàpp nañ ne war nañ koo waxtaane war nañ koo fàttalante tomb boo xam ne mooy man hum alfaaizuuna fi ramadan man hum alfaaizuuna fi ramadan ana ñan ñooy ñi texe ana ñan ñooy ñi am bénéfice ana ñan ñooy ñi réussir ci weeru koor loolu ñu war ko laaj sunu bopp kenn ku nekk ci ñun ndax ñu war a góorgóorlu ñu bokk ci ñooñu nga xam ne ñoom ñooy ñi réussir ci weeru koor nuridu an naqifa waqfa wa nara min ayi lfariqayni nahnu ñu war a taxaw taxawaay ñu xool man ak yéen kenn ku nekk ci ñun ñu xool ñun ci ban mbooloo lañu bokk ndax mbooloo mi am bénéfice mbooloo mi texe ci weeru koor wala mbooloo mi perte wala mbooloo mi torox ñaari mbooloo yi kenn ku nekk ci ñun war na xool boppam seet moom ci ñaari mbooloo yi ban la ci bokk borom bi tabaraka wa taala wax na ci quraan liyumayyiza allahu alxabisa min altayib wa yaj'alu alxabisa ba'duhu ala ba'd man yàlla tabaraka wa taala damay segg li baax ma génne ci lu bon li bon ma génne ci lépp lu baax sànni ko yàlla tabaraka wa taala day segg li baax day génne lépp lu bon sànni ko ci fële mu dem ci li bon mu xool la ca baax mu génne ko dugal ko ca la baax kon weeru koor weeru segg la weeru tame la yàlla yor tamem di tame ñu baax ñi mu teg leen côté safaan bi mu teg leen boor te li bon yàlla nee na bu ma ko seggee fa yaj'aluhu fi jahannam ulaa'ika humul xaasiruun su ma ko teggee dama koy sànni ci biir safaraw jahannam yàlla nee na mbooloo moom nga xam ne ñoo fekke weeru koor te fexewuñu ba texe ci mbooloo moomu mooy ñi perte mbooloo moomu mooy ñi jëm jahannam ulaika humul xaasirun mbooloo moomu fekke weeru koor te fexewuñu ba dem aljanna mbooloo moomu ñooy ñi perte mbokk yi wa nahnu fi ramadan ñun ñu ngi ci weeru koor ci weeru sellal weeru tamxiis weeru segg fa alal jami an yudrik kenn ku nekk mu war a xam mu war a feeñal war a leeral mawqifahu lan mooy taxawaayam ci weer yi mu war a càmbaraat boppam segg boppam xool boppam bu baax a baax qabla an yafuutal awaan balaa jamonoy weeru koor di paase mbokki jullit yi nanu xool sunu bopp nanu defaraat sunuy jikko nanu xoolaat sunu pas-pas nanu càmbaraat sunuy mbir balaa mbir mee wéy ixwatal iman ya axi l muslim fa hal anta min alfaizin am min alxasirin hazal am ku nekk ci ñun war a laaj boppam ndax man ci ñi réussir ñi passé ñi gañe ci weer wi laa bokk wala ci ñi perte ku mu mën a doon ci ñun mu laaj boppam ndax man ci ñi réussir ci weer wi laa bokk wala ci ñi perte ci at mi laay bokk ñu war a taxaw ay taxawaay yu tolloog fukki taxawaay yu ñu war a taxaw seetlu kenn ku nekk nga xool ci sa bopp nga càmbar ci sa mbir ndax bokk nga ci ñi am bénéfice wala bokk nga ci ñi perte alwaqfatul ula taxawaay bu njëkk bi allazina faazu bi jawaiz wa thamarati ramadan al azima hum ñi nga xam ne réussir nañ texe nañ mucc nañ ci weer wii am nañ ci kado ak garabu weeru koor witt nañ ci fir wii lekk ci ñi njëkk ñi mooy alfaizul awwal ki njëkk a texe ci weer wi mooy ahlu tazkiya mooy ñi setal seen bakkan ñi bomb seen bakkan ñi sang seen ruu ak seen jikko yemuñ ci sang yére beeg yaram bi waaye ginnaaw yére bi ba mu setee yaram bi set dañoo bombaale ruu géeg bakkan gi mooy ahlu tazkiya qaala jalla wa ala wa man yatihi muminan qad amila salihan fa ulaika lahum darajatu lula جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى borom bi di ñu jàngal ci Qur'an mu ne wa man ya'tihi mu'minan képp ku dikk ci yàlla képp ku dikke yàlla ba ngay dikk ci moom benn ndomba tànk dong nga takk mooy ba ngay ñëw mu'min yaa ngi nekk ku gëm yàlla indaale woo leneen lu dul iman ngëm yàlla mu'min ba nga takkee garaat googu yaa ngi ëmb ci sa biir saak amalu saalix qad amila saalihaat yaa ngi feesal say bagage say bagage lan la ay jëf yu baax yàlla ne fa ulaayika lahumu darajatul ula ñii ñoo yor daraja yu kawe ya ca biir aljanna yàlla ne na ñii nga xam ne setal nañ seen bopp fees dell ci ngëm yàlla ëmb ay jëf yu baax indil ma ko man yàlla tabaraka wa taala dinaa leen fay aljanna yoo xam ne day daw ci suufam ay dex kër ga ma leen di dugal buñ fa duggee dootuñu génn yàlla nee na wa zalika jazaul awfa jazaau man tazakka lii mooy fayu ku setal bakkanam lii mooy fayu ku weer weer wi ku woor weer wi ni ko yàlla tabaraka wa taala bëggee wa haada huwa allazi arrafa nafsahu wa alima uyubaha fa taharaha wa saa fi tazkiyatiha kii mooy ki nga xam ne moo càmbar boppam moo fóot yéreem sang yaramam bomb jikkoom setal ruuxam xam ayibi boppam ba mu xamee ayibi boppam mu taxaw ci laabal ko ba mu laab mu jaar ci yoon wu nga xam ne def cee sóobu ngir setal bakkanam waa ji taxaw taxawaay bii te mooy taxawaay bu njëkk alfaisul awwal kii ma jaizatuhu lan mooy kado bi ko yàlla dencal mooy al itq min an niiraan yàlla da koy goreel ci safara ki woor weer wi setal ci bakkanam setal ruum setal jikkoom setal yaramam setal yéreem waa ji woor weer wi def ci lii lan mooy kado bi ko yàlla dencal mooy al itq min an niiraan yàlla goreel na ko ci safara wa balaga ala al jinaan kii egg na ca combaxtalu aljanna yi gën a kawe wa qad xamaahu allahu aza wa jal wa waqaahu sarra sayiaati walfitan kii ba ko yàlla gorelee ci safara yóbbu ko ci daraja yi gën a rëy ci daraja yi aljanna yu kawe yi yàlla làq ko fa làq yeggul yàlla aar ko protéger ko ci bépp musiba ak ci bépp fitna yi àdduna ak fitna yi allaaxira allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha yow yàlla yow boroom asamaan ak suuf yow mi buuri buuri yow yàlla ñu ngi lay ñaan nga setal sunuy bakkan nga laabal ko ba mu laab yow yàlla ñu ngi lay ñaan sunu bakkan yooyu nga may leen ragal yàlla nga setal leen yow yàlla yow dong yaa mën a setal bakkan ndax yaa moom bakkan yaay ki bind bakkan mbokk yi loolu moo doon tomb bu njëkk ci taxawaay bu ñu war a taxaw ci weeru koor ñaareelu taxawaay alfaidu saani mooy kan mooy ahlul maghfira mooy ñi yàlla dencal ngërëm ak njéggal qaala taala ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم alfaisu saani kii taxaw taxawaayu ñaareel mooy ki yàlla dencal ngërëm ak yërmandeem ak njéggalam borom bi taara tabaraka wa taala mu wax ci suratu saf mu woo ñi gëm yàlla mu ne yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla ndax du ngeen ñëw ma tegtal leen ci commerce boo xam ne borom du perte commerce boo xam ne day indil nit njëriñu àdduna ak àllaaxira di ko musal ci mbugal di ko musal ci perte àdduna di ko musal ci gàcce àllaaxira moo ndax du ngeen ñëw ma tegtal leen ci njëriñu àdduna ak njëriñu àllaaxira ah kay yow buur bi tabaraka wa taala mu ne tu'minuuna billaahi ngalawaay gëm leen yàlla ku bañ a perte àdduna bañ a perte àllaaxira ban taxawaay ngay taxawe mooy gëm yàlla tabaraka wa taala ak gëm yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam tuminuuna billahi wa rasulihi gëm yàlla gëm yonentam ku ko def yàlla dina la musal ci gàcce àdduna ak toroxtaange àllaaxira ñaare ñetteelu taxawaay ci ñooñu nga xam ne ñooy ahlul maghfira ginnaaw gëm yàlla gëm yonent yàlla muhammad mooy watu jaahiduuna fi sabilillahi ngalawaay xeex leen ci yoonu yàlla nan ngeen di xeexee yan arme ngeen di yor yan taxawaay ngeen di taxaw yan ngànnaay ngeen di yor ci xeex bi bi amwaalikum joxe leen seen alal wa anfusikum ak seen bakkan allahu akbar ñëw leen ma tegtal leen ci lu leen di musal ci gàcce àdduna ak gàcce àllaaxira di leen musal ci mbugal mbugal mu metti mu tar lan la yow yàlla mu ne al imaanu billah wal imaanu bi rasulihi muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm yàlla gëm yonent bi xeex ci yoonu yàlla ñu ne yàlla yan arme la ñu yor mu ne bi amwaalikum seen alal wa anfusikum ak seen bakkan nee na zaalikum xayrun lakum lii dey moo gën ci yéen moo gën ngeen nekk ci àddunay daw di dajalay jal fàtte jalla jalaaluhu dana ñëw jël leen ñu yóbbu leen jal leen ñëw tas jal yi ngeen jaloon jaale leen tu'minuna billahi gëm yàlla wa rasulihi gëm yonentam wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum lii moo gën ci yéen in kuntum taalamun bu fekkee xam ngeen xam ngeen baatin di ngeen xam lii moo gën ci yéen mooy gëm yàlla gëm yonent taxaw ci diineem ji samp ko moytu ay mbugalam ak meram su ngeen ko defee su ngeen taxawee ci mbir yi yàlla mu ne yaxfir lakum zunubakum dinaa leen jéggal seeni bakkaar dinaa leen baal seeni bakkaar dinaa leen jéggal seeni tarxiis dinaa leen sàng sutura ci seeni manke-manke wa yudxilakum jannatin tajri min tahtiha al anhaar dinaa leen faye seen jëf yi ngeen jëf ay château yu tudd aljanna yoo xam ne day daw ci suufam ndox dinaa leen faye masakina tayiba ay kër yu teey yu rafet kër yoo xam ne ku fa tëdd boo nelawee xandoor kër yoo xam ne ku fa dëkk doo xiif doo mar doo rafle doo feebar masakina tayiba moo yàlla kër yooyu fu ñu nekk mu ne fii jannaati adin ci aljanna ju tudd aden yàlla nee na lii ma leen wax zalika zalika alfawzu alazim li mooy texe allahu akbar li mooy texe dund goo xam ne doo dee doo feebar doo ñàkk doo wériti dara du la dal ci manqué-manqué boo xam ne ku la gis yërëm la du la dal mbokk yi li mooy ñaareelu taxawaay bu ñu war a taxaw ci weeru koor ixwaani wa xasala ala jaizati rab al kubra ki taxaw taxawaay bii moom ban kado la ko yàlla dencal mooy al xufraan mooy yàlla da koy jéggal ñii nga xam ne ñoo am taxawaay bii hum ahlul musaabara wal jihaad mooy ñi takku taxaw tem ci fippu ci bànneexi àdduna fippu ci mbir àdduna fippu ci seytaan fippu ci àdduna rëcc takku tem jëm ci yàlla tabaraka wa taala ñu xeex wa jaahadu fi tariqi ila allah ñu xeex jëm ca yoon wi jëm ci yàlla tabaraka wa taala ndekee mbokk jullit yi ku bëgg a dem ci yàlla foog nga xeex foog nga fippu foog nga jéem a dagg buum yi lay tënk xee yoon wi ngay jaar ay gàllankoor la ay tolof tolof la ay metit la ndeke foog nga fippu jéem a jaar ci yoonu yàlla tabaraka wa taala allazina jahadu fi tariqi ila allah fi tariqi ila allah ñi nga xam ne dañoo xeex fippu rëcc àdduna rëcc seytaan rëcc bànneexi bakkan ñii ñooy ñi jëm ci yoonu yàlla tabaraka wa taala lan moo tax ñu mën a rëcc lii lépp nag ñu mën a rëcc àdduna rëcc bànneexi bakkan rëcc seytaan lan moo tax ñu mën a rëcc mooy wa kaana imaanuhum salaban qawiyan seen ngëm dafa dëgër këng seen ngëm dañ koo suuxat dañ koo saxal ba reen yi daj kap mat sëkk ba garab gi kenn mënatu koo buddi seen ngëm dañ ko dëgëral ba mu gën a dëgër montagne yi loolu moo tax ñu mën a sax ci yoonu yàlla tabaraka wa taala rëcc bànneexi bakkan rëcc àdduna rëcc seytaan rëcc bépp mbir boo xam ne day gàllankoor doomu aadama ba du dem ci yàlla tabaraka wa taala seen ngëm ngay dëgër ñii bokk na ci li leen dimbali ba ñu mën a dem ci yàlla fa ay qanu tamaam alyaqini innahum safwatu xalqi llahi fi l ard def leen a leer ne ñoom ñii ginnaaw ba ñu amee ngëm gu mat gu wóor ñu am yaqiin am kóolute ne ñoom ñooy mbindee fi yàlla tànn ñuy représenté yàlla ci kaw suuf lool moo tax ñu mën a am texe gi mën a am njéggal gi mbokk yi ñaari taxawaay a ngi nii bi njëkk mooy ahlu tazkiya ñaareel mooy ahlul maghfira ñetteelu taxawaay bu jullit war a taxaw ci weeru koor mu laaj boppam ndax moom bokk na ci ñi texe ci weer wi al faizu salis ahlul istiqaama mooy ñuñu njub yaqulu taala إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فهؤلاء الذين استقاموا على طريق الله وطاعته ولم يلتفتوا يمينا أو شمالا mbokk ñi te mooy ñooñu istiqaama mooy ñi taxaw ci njub jeng bépp yoon wu jàdd wu walis yoonu yàlla tabaraka wa taala inna allazina qaalu rabbuna allah summa staqaamu ginnaaw ba ñu seedee gëm ne yàlla mooy seen boroom ana ban taxawaay lañ taxaw mooy ñu ne ñun yàlla rek ci yàlla rek lañ jëm duñu jaar ndeyjoor duñu jaar càmmuñ duñu topp sàmba duñu topp demba kan la ñuy topp yàlla tabaraka wa taala yàlla ne fa haulaai alladina istaqaamu ala tariqillah ñii ñooy ñi jub ci yoonu yàlla ñii ñooy ñi sóobu yoonu yàlla tabaraka wa taala te gestu wuñu ndeyjoor gestu wuñu càmmuñ ñii bokk nañu ci ñi texe ci weeru koor te mooy ñetteelu groupe bi te mooy ahlul istiqaama ñeenteel bi ñi nga xam ne texe nañ ci weeru koor ñeenteelu groupe alfaizu rabi ahlu sidqi mooy ñooñu dëggu qaala taala hada yawmun yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al anhaar خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم الذين صدقوا الله فصدقهم فكانوا من الفائزين حقا mbokk yi bu ñu bëggee xam bokk nañ ci ñi am bénéfice ci weeru koor wala bokkuñ ci bu ñu bëggee xam ndax yàlla nangu na sunu koor wala yàlla nangu ko nañu xool suñu bopp ndax bokk nañ ci ñu dëggu wala bokkuñ ci borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyam bis la boo xam ne yanfa'u saadiqiina sidquhum ñi dëggu woon seen dëggu dina leen jëriñ allahu akbar ndeke bis a ngi ñëw doomu aadama bu dee ku dëggu woon la ndëggu googu mu dëggu woon dana ko jëriñ dan lañ yàlla boole ci ñu dëggu nee na ñooñu danaa leen fay aljanna joo xam ne dana daw ci suufam ay dex danaa leen dugal aljanna dootuñu génn ñu ne yàlla lu ñii lu tax nga fay leen lii mu ne radiyallahu anhum ñii dëggu dama kontaan ci ñoom moo tax ma fay leen lii radiyallahu anhum ñoom tamit waradu anhu ñoom tamit kontaan nañ ci man yàlla tabaraka wa taala man yàlla kontaan naa ci ñoom ñoom kontaan nañ ci man yàlla nee na zalika al fawzul azim bu dee doomu aadama texe rek la bëgg texe gu rëy kon dëggu dana yóbbu doomu aadama ci texe yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na maa ngi leen di digal ngeen dëggu nit du dañ di dëggu ba yàlla bind ko ci ñu dëggu ndax dëggu day jubal nit aljanna nit du dañ di dëggu ba ñu bind ko ci ñu dëggu te soo dëggoo dugg aljanna ñi dëggal yàlla yàlla dëggal leen ñi nangul yàlla yàlla nangul leen ñooñu fakkaanu minal faizina xaqan dëgg-dëgg mbokk yi bu ñu xool ñi texe mooy ñii lisa oh tax doomu ndey yi ci weer wi ñu nekk ñu ngi soññ sunu bopp di soññ mbokk jullit yi pour ñu nekk ñu dëggu axil muslim kun saadiqan nekkal ku dëggu ma allahi taala ci ngëm gi nga gëm yàlla dëggul ci sa diine dëggul sa digganteeg sa boroom bul def diine ji taf-taf bul làmbatu sa digganteeg sa boroom dëgg rek moo fi xecc ngalawaay mbokk yi nañu dëgg sunu digganteeg sunu boroom nanu dëgg sunu digganteeg sunu yonent nanu dëgg sunu digganteeg quraan nanu dëgg sunu digganteeg sunu diine fala takzib bul musa fen bul musa war bul musa wuruj bul musa rambaaj góorgóorlul kay takuuna min al faizin ngir nga bokk ci ñi texe ñi nga xam ne weeru koor jeexee danañ bokk ci ñooñu yàlla di takkal diplôme boobu nga xam ne moom mooy diplôme mu taqwa góorgóorlul nga bokk ndax nga bokk min al faizina fi ramadan ñi nga xam ne danañ bokk ci ñiy jël seen cadeau bu weeru koor gi di jeex danañ bokk ci ñi nga xam ne ëllëg yowmal qiyaam dinañ leen woowee ci buntu rayyaan dugal leen ci buntu aljanna jooju doomu ndey yi mbokk jullit yi juróomeelu taxawaay bu ab jullit war a taxaw ci weeru koor laaj boppam ndax moom bokk na ci ñi texe wala bokk na ci ñi perte alfaizul xaamis ki jël cinquième prix bi mooy ahlu tawba mooy ñi nga xam ne dañoo tuub ci weeru koor seeni bakkaar yaqulu llahu jalla wa ala buur tabaraka wa taala nee na qul inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin azim man de ragal naa yow muhammad na nga wax nit ñi ne man de ragal naa su ma moyee sama boroom yàlla mbugal ma mbugal mu rëy qul inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin azim man de ragal naa nekk ci bëccëgu weeru koor di ndikki ndax su ma ko defee yàlla dina ma mbugal mbugal mu rëy yow jullit bi waxal man de ragal naa su ma añee bëccëgu weeru koor yàlla dina ma mbugal mbugal mu rëy man de ragal naa su ma ñàkkee bokk ci ñu woor yàlla mbugal ma mbugal mu rëy man yusraf anhu yawma izin faqad rahimahu wa zalika al fawzul mubin yàlla nee na képp koo xam ne musal naa la ba bëccëgi weeru koor ndékkiwoo ci añoo ci njoganaloo ci jaxasowoo ci ay jigéen kartoo ci fenoo fi rambaajoo fi jëwoo ci nga woor weer yi ni ma ko sante képp koo xam ne musal naa ko ci loolu kooku de faqad rahimahu yàlla yërëm na ko allahu akbar man yusraf anhu yawma idin faqad rahimahu wa zalika fawzul azim wa zalika al fawzul mubin yàlla nee na képp koo xam ne musal naa ko ci bëccëg weeru koor ba def fii kooku yërëm naa ko te man ku ma yërëm rek kooku dina am texe texe bu wér texe bu leer texe bu biir axi saim aw axil muslim yow mbokk julit yow mbokk mi woor almutasifuna عن المعاصي الذين صرفهم الذين صرف الله عنهم السيئات وتقبل توبتهم ñi nga xam ne ñoom ñoo yor melokaan bi ñoo daw bakkaar yi ñoom ñoo mooy tandiku ba mooyu ñu yàlla tabaraka wa taala allazina sarrafa allahu anhum sayyiat ñi nga xam ne yàlla musal na leen ci yu bon ci yu ñaaw tux ci weeru koor naan ci weeru koor jëw ci weeru koor fen ci weeru koor añ ci weeru koor ñi nga xam ne yàlla musal na leen ci lii wa taqabbala tawbatuhum yàlla nangu seen tuub yàlla nee na fa man balagat tawbatan nasu walam yarji ila zanbi marratan uxra huwa alfaizu fi ramadan képp ku yàlla musal ci yii mu tuub tuub bu sell delluwaatul ci ay bakkaar beneen yoon yàlla nee na kii huwa kii alfaizu fi ramadan mooy ki texe ci weeru koor mbokk yi ci yàlla juróom-benn taxawaay bu jullit war a taxaw càmbar boppam laaj boppam ndax moom mi ngi bokk ci ñu ñi am bénéfice ci weeru koor wala bokku ci alfaizu sadis mooy ki jël sixième prix bi allazina jahadu fi llahi haqa jihaadi yaqulu llahu tabaraka wa taala mooy ñi xeex ci yoonu yàlla borom bi tabaraka wa taala nee na lakin lakin rasul walladina amanu maahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul xayraat wa ulaika humul muflihun allahu akbar ndeke sixième prix bi ci weeru koor ñi ci texe ñi ci am bénéfice mooy ñi xeex ci yoonu yàlla tabaraka wa taala ndeke kon foog nga xeex ak sa bakkan foog nga xeex ak seytaan foog nga xeex ak bànneexi bakkan yi pour nga mën a dem ci yàlla tabaraka wa taala yàlla nee na yonent bi ak gaa yi gëm yàlla ànd ak moom mooy sahabatul kiram ñoom dañoo xeex ci yoonu yàlla ci seen alal ak seeni jëmm moo tax ñu am la ñu am yàlla mu ne wa ulaika lahumul xayraat moo tax ñu làq bépp njëriñ moo tax ñu am bépp xéewal moo tax ñu am bépp yiw wa ulaika humul muflihun yàlla nee na loolu moo tax ñoom ñu bokk ci ñi texe kon ndeke ñun bu ñu buggee bokk ci ñi texe ñooñu yàlla tuddee almuflihun wa hum allazina yastaghriquuna juhdahum fi taatillah mooy ñi def effort ñi sotti seeni coono ci jaamu yàlla tabaraka wa taala fi taatillahi taala seen effort yépp seen coono yépp du lenn lu dul sonn ci yoonu yàlla tabaraka wa taala ñoom fa jaahadu bi amwaalihim xeex nañ ak seen alal xeex nañ ak seen bakkan wala dayhim al istidaadu tàmm ñoom dañoo préparé préparation bu mat sëkk li tadxiya bi ay cheyin min ajli rida allah lépp luñ amoon lépp luñ mës a denc lépp luñ mës a mën defuñ ko fenn dañ ko jox yàlla tabaraka wa taala li bi ay cheyin min ajli rida allah lépp dañ ko def rek ngir am kontaan te yàlla tabaraka wa taala subhanahu wa taala fa li kay tafuuza haadha alfawzu alazim laa budda an tudxiya tadxiyatan kabir mbokk yi ku bëgg a texe ku bëgg a rëcc ci safara ku bëgg a ëllëg am ngërëmal yàlla tabaraka wa taala te mooy dugg aljanna il faut nga def sacrifice xoolal tey ci àddina ay nit a ngi ni def ay sacrifice ngir alal dugg ci gaal gi jëm géej ay nit def nañ ay sacrifice di langay avion ay nit def nañ sacrifice di dóorante ay kurpeñ ngir am alal ay di def nañ sacrifice ci lu mu mën a doon nga gis ko bàyyi këram bàyyi njabootam ngir alal noonu ñuy sonnee ci alali addina te alal jooju yàgg-yàgg fii lañ koy bàyyi noonu la ñu war a sonnee ngir am kontante yàlla tabaraka wa taala mbokk yi ak ngërëmam def sacrifice yu mag joxe sunu alal ci yoonu yàlla tabaraka wa taala bu ñu amul alal ñu déem a def ay azkar def ay awraat di tudd yàlla lu bare bari ci sunu làmmiñ ak sunu xol suñu mënul loolu mbokk yi bokk xanaa lu nu dee dee dee dee war nañoo mën a jàng alquran lu baree baree baree baree bari wàcc ay kaamil ci weer wi mbokk yi gis nga bés bu nekk boo jàngee ñaari hisib bu weer wi jeexee di nga wàcce kaamil julli juróom ginnaaw julli juróom julli gu nekk boo jàngee ñeenti fëy bu weer wi jeexee nga wàcce kaamil bi kon taxawaay bi mooy juróom benneelu taxawaay juróom ñaareelu taxawaay bu jullit war a taxaw ci weeru koor seet boppam ndax moom bokk na ci ñi texe ci weer wi wala bokk ci alfaisu saabi mooy saahibul qaraar assujaa mooy borom taxawaayu njàmbaar ki nga xam ne allazi yabiu ay cheyin li yasila rida allahi subhanahu wa taala ki nga xam ne moom dafa jaay lépp lu mu amoon dafa jaay ba bakkanam dafa jaay alalam dafa jaay lépp loo xam ne moomeelam la woon ngir am kontante yàlla tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala wax ci qur'an ne inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtulun fayaqtuluna wa yuqtalun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن borom bi tabaraka wa taala nee na yàlla tabaraka wa taala day day jënd day jënd ci way gëm yàlla yi lan lay jënd ci ñoom seen bakkan wala seen alal yàlla day jaay julit ñiy jënd lan lay jënd ci ñoom seen alal wala seen bakkan mu jox leen aljanna ñu xeex ci yoonu yàlla ñu rey leen wala ñu rey yàlla nee na maa leen dig te man sama dig lu dëggu la te dig gi ma leen dig signé woon naa ko ci téere bu tudd tawraat signé naa ko ci téere bu tudd injil signé naa ko ci téere bu tudd quran allahu akbar ndeke facture yi kuy jaay ak kuy jënd foog ñu am facture yi ñuy joxante diggante yàlla ak julit yi yàllaay jënd yàllaay jaay julit yay jënd ban facture la ñu signé contrat yi mooy fi tawraat téere bu tudd tawraat téere bu tudd injil téere bu tudd quran ñetti téere yi ku fa dem di nga fekk yàlla tabaraka wa taala ne képp ku ñu rey ci sama yoon wii képp ku xeex ci sama yoon wii képp ku sonn ci sama yoon wii nga sonn ci sa alal sonn ci sa bakkan yàlla nee na boo dee ma dugal la aljan kon ñu nekk ci bëccëgu weeru koor jullit bi war a sonn ci xiif war a sonn ci mar war a sonn ci liggéey ngir jëriñu nga woor di liggéey xiif mar sonn te terewula di julli di jàpp di julli di zikr di jàng alquran yàlla tabaraka wa taala nee na boo faatoo ci sama kattan ci sama mën-mën man yàlla tabaraka wa taala ma dugal la ci kër gu tudd aljanna wa qala rasul sallallahu alayhi wa sallam kullu nnas yaxdu fa baayiun nafsahu fa mubiquha aw mutiquha fa mutiquha aw mubiquha yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu xëyee doomu aadama yëpp bu ñu xëyee nit ñi day ñett dong lañ wala ñaari nit ñépp dañuy xëy am na ci koo xam ne day jaay boppam tayle ko am na koo xam ne moom day libéré boppam ki jaay boppam alak boppam mooy ki dugg ci ay giraawaali ki dugg ci ay musiba ki dugg ci ñàkk woor ki dugg ci caaxaan ki dugg ci am po ki dugg ci am fecc ki dugg ci jaxasoog jigéen ñi ci weeru koor kooku day fa mubiquha kooku alak na boppam waaye ki sëbe boppam mooy ki xëy woor fa mutiquha kooku libéré na boppam ki daw di laqatu ji ci jàkka yi di déglu alquran woor bëccëgu weeru koor daw nëbbatu ji ci jàkka yi ndax qur di déglu quran yàlla nee na kii libéré na bakkanam kii jege na boroomam kii làq na yiw àdduna kii làq na yiw àllaaxira idan ayyuhal muslim yow sama mbokkum julit fa alayka an taaxuza qararan wa tusabbita alayhi hatta tanju ma allahi azza wa jal jëlal décision guddi yu ñu nekk bëccëg yu ñu nekk bëccëgu jël décision la far ak yàlla wala far ak seytaan bëccëg la yoo xam ne da ngay jël décision topp yàlla wala topp seytaane ndax ñaar rek ñoo fi nekk topp yàlla wala topp seytaane ñu ngi ci bëccëg yoo xam ne nag yow da ngay xool ci ban équipe nga bokk ndax fariqun fil janna wala fariqun fi sair da ngaa bokk ci ñooñu aljanna wala ñooñu safara mbokk yi guddi yi ñu toll bëccëg yi ñu nekk ñaari équipe ñoo fi nekk équipe bu yàlla ak équipe bu seytaane ku nekk xoolal foo bëgg a bokk ku nekk xoolal ban mayo nga bëgg a sol ban poste nga bëgg a football tribune bi moom kenn du fi toog man faruma fen loolu mënul nekk ñaar rek ñoo fi nekk imma shakiran wa imma kafuran benn nga gëm yàlla rek wala benn nga weddi yàlla tabaraka wa taala axil muslim yow sama mbokku julit jëlal décision jëlal décision ndax nga mën a rëcc ndax nga mën a mucc nga bokk ci hisballah ndax ala inna hisballahi humul muflihun ñi bokk ci parti yàlla mooy ñi gañe mbokk yi juróom ñetteel ci fukki taxawaay yi jullit war a taxaw juróom ñetteel bi mooy alfaidu thamin mooy almuttaquun mooy ñi am ragal yàlla fa alladi xasala samarata siyaami wa saara min almuttaqin huwa azamu alfaizina bi qawlihi taala يا أيها الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بكم جليت فخيل nga taxaw juróom ñetteelu taxawaay te mooy nga bokk ci ñi ragal yàlla ki nga xam ne góorgóoru na ci weeru koor ba am ci diplôme mu taqwa fa alladi xassala samarata siyaami ki lekk firwi bii te mooy firwi koor ci biir weer wi wa saara min almuttaqin mu góorgóorlu ba bokk ci ñi ragal yàlla huwa azamu alfaisin kii moom moo jël prix bi gën a rëy ci weer yi juróom-ñetteelu prix bi ki ko jël prix moo ëpp bénéfice moo gën a rëy ci ñi jël prix yi borom bi tabaraka wa taala wax na ci quran ci suratu yunus aye 63 64 mu ne alladina amanu wa kanu yattaquun ala inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yahzanuun sama xarit yi man yàlla ñan ñooy sama xarit ci weer wi ñan ñooy sama xarit démb ñan ñooy sama xarit tey ñan ñooy sama xarit ëllëg allazina amanu mooy ñi gëm yàlla wa kaanu yattaquun te ragal yàlla lan moo tax ñuy woor yàlla nee na laallakum tattaquun mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ci juróom-ñetteelu taxawaay bi ci fukki taxawaay yu ñu war a taxaw ci weeru koor ñëwal nañ leen ba ci juróom-ñetti taxawaay yi insha allah ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala àllarba bii di ñëw ci waxtu wi dinañ leen dellu si waatal mottaliwaat leen yeneen tomb yi des ci fukki taxawaay yi jullit war a taxaw ci weer wi laaj boppam hal ana min alfaizin hal nahnu min alfaizin fi ramadan ndax ñun bokk nañ ci taxe ci weer koor ñu ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp ñu ngi nuyu borom daara ji di nuyu mudir di nuyu sunu technicien bu baax bi muy Baye Ndaw ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu nangul nangul leen ñoo ngi nuyu bépp auditeur rajo dunia di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla nangu suñu koor nangu suñu julli nangu suñu zikr nangu suñu bépp xeetu jaamu yàlla buñ def aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim seen mbokk daara bu tudd oustaz Saïd lii moo doon waxtaan ak yéen asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh